أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw ba ñu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa xam ngeen ne samedi passé ñeenti aaya lañu waroon jël waaye dañoo dagg aaya yi bismillah ñu ngi jëm a mottali tey aaya yooyu ñu waxoon muy ñeenti aaya ñu jël tey aaya 37 38 39 aaya yi bokk na ci li ñu ëmb mooy ŋàññ nay nay goo xam ne banu Israil feeñ na ci ñoom ñu nay ngoot ba dëgg yàlla gi tabaraka wa taala ñu teg ci seen tànk bañ koo génnee bañ koo leeral xam ngeen ne nay ci lislaam mazmuum lu ñu ŋàññ la charan ci sharia ŋot bañ a joxe te tey suñuy xool mbirum nay danañ fekk jullit yi ëpp ci tey gën cee ŋot bu ñuy xool monde bi di xool alamul islaam yi danañ gis alal fu mu gën a bëree mooy réewu jullit yi waaye bu ñuy xool tamit ñi gën a ñàkk danañ gis ne mooy réewu jullit yi te xam ngeen ne joxe li ci islaam wax def lu baax ci sa alal li ci lislaam wax bu fekkoon ne dëgg dëgg dëgg ñoo ngi koy dund comme ne ko gaa yi dunde woon kon jullit bu amul du fanaan ci kaw suuf waaye tey gaa yi nay nañ trop trop trop trop trop nay nag yow mi koy dégg te xamoo ko mooy al imtinaaw mooy terewu min aadaai xuquuq al waajib mooy nga terewu droit yi nga xam ne mu nekkoon ci yow nga war ko def nga lànk bañ ko def yàlla dalaa joxoon alal wala yàlla dalaa may xam-xam wala yàlla dalaa jox kàttan alal jooju mu la jox nga lànk bañ cee joxe xam-xam boobu mu la jox nga lànk bañ koo joxe kàttan boobu nga lànk bañ cee dimbali nit ñi loolu mooy nay mooy bañ a joxe nay nag ku nay du dugg aljanna albaxiilu laa yadxulul janna allahu akbar yonent bi ne ku nay du dugg aljanna kon mu ne was sox ŋott ba tey moom buxlu ba tey nay la waaye ma a xirs wa huwa charrun min majral buxli ŋott nag moom moo gën a garaaw nay ndax xëy na ki nay dañuy nettali benn waay dafa nay ba bi mu daanoo ci teen bi gaay bi ñu ne ko indi sa loxo ñu génne ko mu ne maa bañ dëkk bi yëpp ñëw waaye lu ngeen génne waa ji ñu ne ah baax na xanaa gisoo liñ def lan la ñu ne dugalal nga dugal sa loxo ne ko indi sa loxo mu lànk ñu woy doom ji sa papa de dafa bañ a génne ci teen mu ne lu ngeen ko wax ñëwee dañ ko ne indi sa loxo mu bañ mu ne yéen a ko def xaar leen ma ñëw mu ñëw ne papa am sama loxo mu ne waaw waaw nii la at jàpp ñu xëdd ni ko xam nga musiba la kooku nay na de waaw nay ba kenn ko ne indi am rek mu doog a joxe waaw loolu musiba weesuwul loolu nit ki ngott ngott ngott nay ba laa xawla wala xawla illa billah boo doon ngelaw sax ne doo du ma naaw tey du ma dem loolu musiba la yal ci yàlla musal mbokk yi borom bi subhanahu wa taala ci aaya boobu bu njëkk loolu la ñu yàlla di tere bokk na ci liñ yàlla di tere ci aaya bi mooy xéewal gi la yàlla defal nga nëbbu ko nit ñi loolu tamit tey bëri na ci ñun de ak bëri ci ñun ñooy xëy suba na leen sawa ñu ne ñu ne sawa pas sénégalaisement Sénégal mooy réew moo xam ne ñëpp ay jàmbat ñàkk ñëpp ki nga yaakaar sax xëy suba jël oto ñëw ba ci moom sone bureau mu ubbi nga koy wax sa problème da ngay wax ba pare mu ne lan ci temps yi moom dëkk bi ah man tamit temps yi di la jàmbat te yaa te moo la tanekat au lieu moom sax mu sant yàlla waaye moom itam dalay jàmbat ñëpp ay jàmbat Sénégal koo dajal day jàmbat li lay wane nit ñi dañuy nëbb xéewal yi leen yàlla defal boo doon seeti benn waay mu toog di konte xaalis jal bi yi ci digg néegam nga fëgg bunt bi nu muy def ku may wax nu muy def ah xaar xaar ma laaj xale bi ah day ramas xaalis bi daf ko nan nëbb ko après mu doog a ubbi bunt bi gis nga de bu doon darab bi la ko sotti day ramas darab bi daal di koy àndal ne teg ci ñaari njaganaay pare toog ci suuf lu tax waa ji bëggul nga nga ub- mu nga mu ubbi noonu lu tax bëggoo waa nga ubbi bunt bi waa ji gis xaalis bi lu tax kon dan kon waa ji danaan ah sama problème bi ma doon wër réglé mu na mu ngi nii loolu xéewal gu la yàlla defal la loo ciy nëbb boo nëbbee xam na ne am nga yàlla xam na ne am nga su nit ñëwee ne la dama am problème nga ne ko awma yàlla xam na ne da ngay fen am nga wala musiba boobu ni mu toll muy boole nga ñaar nëbb nga xéewal gu la yàlla jox ba pare nay nga loolu ab jullit du ko def loolu tamit yàlla daf ñu koy tere bokk na ci li ñu yàlla di tere ci aaya yi mbokk yi weddi borom bi nee na képp ku weddi dencal naa la safara kon képp ku weddi rek sa mujjantalu ëllëg yaag sa borom mooy safara nga jëm yàlla nee na dinaa la mbugal mbugal mu doyati borom baa ngi wax ci aaya yi ba tey ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal te di ngistal gëmunu yàlla gëmunu allaaxira li ko waral mooy seytaane lanu faral borom bi nee na képp ku farandoog seytaane yëgal ne am nga àndandoo bu ñaaw borom bi mu ngi jeexale aaye ni nit ñi day cey buñ gëmoon yàlla gëm allaaxira joxe ci li leen yàlla jox dinañ yëg ne yàlla boroom xam-xam la ci xam gi mu xam ne ñoom kat gëm nañu yàlla gëm nañu alaaxira waaye li leen yàlla dénk ñu ngi ciy joxe yàlla ku xam ku leen xam la ñooñu kon suñu tënkee ci gàttal ginnaaw bañ ci jaaree samedi bële nanu jàpp ne tey mbokk jullit yi lii moom mooy sunu dars sunu borom subhaanahu wa taala mu ne allazina yabxaluuna wa ya'muruuna annaasa bilbuxl wa yaktumuuna maa aataahum allahu min fadlih wa actadna lilkaafiriina azaaban muhiina والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما برم بنينا am na ñoo xam ne ci nit ñi allazina ñi nga xam ne ismu mawsul la saa yoo gisee allazina rek ñi am xel la yàlla di la waxal ku amul xel bokkoo allazina gaa ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay yemuñ ci de ñoom nay nañu ba pare lu des wa yaamuruuna annaasa bil buxl yamnauuna alwaajibaat ñoom dañuy tere ñoom defuñu lu war ba pare defuñu ko de waaye yemuñ ci seen bopp ñu taxaw aussi naan nit ñi bu leen ko def wala ñu doon wax la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yan faddu bu leen jox ku nekk ci wetu yonent bi waaw tey looloo ñëwaat rek même même même mbir yi la képp ku gëm yàlla ñu ne bu la kenn financé la moo tax Caritas femme ONG cri- chris- chrétien yi nekk ci monde bi di tambaambalu lu leen neex def fu leen neex ñu yóbbu ay ndimbal ñu ne jullit ñi ay bu ngeen financé ay terroristes ngeen lu tax pourquoi ñu ne dañuy contrôler jàkka yi te duñ contrôler église yi lu tax tey ci yenn pays ci yenn pays islamique yi képp ku fa génne lu ëpp un million suba ñu yóbbu la foo ci ci ñoom fooñ naan dig ne la xaalis bi nga yónnee wala xaalis bi génn sa compte foo ko jëlee foo ko dugal am na benn mbokk boo xam ne waxtaanu islaam yi rek lay déglu ci benn site internet ci benn dëkk tey def ma woo mu ne ma fan yi dañ maa woo téléphone dañ maa woo ne ma yow mbaa bokkoo ci terroriste yi mu ne leen man damay gëstu sama diine kese amul leneen bokkuma fenn xawma kenn man diine nag moom ñor na ma waaw xoolal loolu tey fa lañ toll ci àdduna mooy am na ñoo xam ne du nu jaamu yàlla du nu bàyyi kenn jaamu yàlla allazina gaa yi nga xam ne yabxaluun dañoo nay yamuñ ci wa ya'muruna an-naasa bil buxli ñuy tere nit ñi def warugar bu yàlla teg seen kaw bi bazlihi min al maaruf mutlaqan yemuñ sax waxuma ci alal mais lu baax sax da ngay gis ku dul def lu baax ku dul dem jàkk ne kenn du fi dem jàkk ngay gis paa bu dul dem yeewu fajar dem jàkk mu ne doom yi kenn du fi dem fajara kër gi kenn du ko tijji du dul 8 heures jot nga ñuy déranger gis naa fi lu yàggul dara borom kër goo xam ne daan dem fajar jàkk waa kër gi ne da leen a sonal ñu jël caabi ji tëj bunt kër gi paa bi yeewu bëgg a dem fajar jàkk mu mbudd kër gi dëgër mu dem xooli caabi ji gis gaa yi wékki nañ caabi ji mu yëg miir bi tëb daal di damm loolu moo ko topp loolu moo ko topp damm damm boobu moo ko topp ba mu dee ñu bëri xam nañ kooku fa musiba la yow kay defatuloo lu baax bàyyi nit ñi def lu baax waaye da ngay gis ku ne du ma ko fi def kenn du ko fi defee amoon nañ benn ilimaan bu ñu doon wax ne téye leen seen doom yi seen doom yi bu ñu ñëw ci jàkka ji ndax man indiwuma sama doom loolu lañu daan wax de kon yéen seen doom amul droit ñëw ci jàkka ji parce que maa imaam bi te indiwuma sama doom ñu ne ko ñun suñuy doom day ñëw de jàkka ji day tàkk rek waaye suñuy doom day ñëw ah kon yow jërëjëf waay ay waay waay waay ndeysaan looy wax te amul seede baaxut allahu akbar kenn ëppuma doom ci quartier bi te man sama doom du ñëw jàkk te kenn musta gis sama doom jàkk kon kenn bu mu fi indi doomam jërëjëf loolu lañ doon wax kenn bu mu fi indi doomam waaye ne ko ñun dañu indi sunu doom yi de dañ leen di indi laa la wax te ku reeb ba xale yi nekk ci kanam ñu jiitu la kenn mënut a wax ba xale yi dem ci ginnaaw ku bëgg a ñëw nekk ci kanam da ngay nekk da ngay teel a ñëw coow li commencé ti kur kur kur kur kur kur kur kur xoolal rek imaam buy wax loolu yal na ko yàlla yërëm ndax génn na àdduna waaye liñ bëgg a jàng rek mooy yàlla lim nu wax mooy dëgg bis bu nekk nu wax ne bi nu bàyyee jàng alxuraan rek la nu alko def alxuraan téere barkeeru ak téere tajwid di jooy ko gën a neex baat rek fekk mbir mi pour dund la woon am na ñoo xam ne du nu baax du nu bàyyi kenn baax du ñu joxe du ñu bàyyi kenn joxe soo bëggee sax dégg naa benn jigéen bu ñëwoon ci rajo bi di wax ne sama jëkk dama bëggoon tabax jàkk sama jëkkër ne ma boo tabaxee jàkk ji ma fase la ma tabax ko mu fase ma déggoon ngeen histoire bi déggoon ngeen ko ah bis boo tabaxee jàkk ji ma fase la ndaw si dem tabax jàkk ji waa ji fase ko ndaw si ñëw ci rajo bi di ut jëkkër waaw jëkkër ji nag waaye da cee tegoon sart jëkkër ji sant njaay la waxoon ndeysaan yemuñ ci bañ a joxe ak tere nit ñi joxe wala bañ a jëf dëgg tere nit ñi ko wala waaye wa yaktumuna dañ doon nëbb encore ma aataahumullahu li leen yàlla jox min fadlihi ci ay xéewalam waaw ku dul joxe day nëbb lan moo tax du joxe parce que dafa bu dafa xam ne bu joxee nit ñi ñu ne kii am na léegi nag kon day bañ a joxe su ko defee nag mooy ñaar dal na ko nay na nëbb xéewal yi ko yàlla defal foo gis ku nay du joxe te beneen bi muy jur mooy li ko yàlla defal ci ay xéewal yëpp daf koy nëbb du ko mus a wax ndax lan day yaakaar ne bu ko waxee nit ñi ne am na bu joxee nit ñi ne am na musiba weesuwul yàlla may la ngay nëbbatu ba faf mu jural la nga nekk ku nay wa yaktumu na ñuy nëbb maa lépp loo xam ne aataahumullahu yàlla indi na leen ko min fadli ci xéewal min maalin ci alal wa ilmin ci xalam ci xam-xam waqad katamu yamuñ ci loolu sax dem nañ ba nëbb jëmm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ay melokaanam addallati alayhi fi tawrat wal injil yahudi ak nasaraan yi comme li mooy seeni melokaan dem nañ sax ba nëbb jëmm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ay melokaanam ak ay màndargaam yi yàlla waxoon mu ngi ci tawrat ak injil ne yonent bi nii la mel mooy kii lu tax ndax iñaane nañ nit ñi xéewal yi leen yàlla defal mu ne wa yabxaluun bi amwaalihim ñuy nay ci seen alal wa amaru bil buxli biha ñu ne bu kenn joxe na ñëpp dañ seen alal is kaanu yaquluna lil ansaar la tunfiqu amwaalakum ala muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ daan dem ci waa ansaar xam ngeen yonent bi bi mu gàddaayee lépp lu mu yoroon daf ko bàyyi ak saxaaba yi lépp lan bàyyi bàyyi tool yi bàyyi commerce bàyyi alal xoola Suhaybu Ruumi alalam da ko gas ci néeg bi mu doon tëdd suul ko foofu ñoom ñëpp a bàyyi léegi nag biñ ñëwee Medina dañoo ñàkk yahud yi dañuy ñëw ci waa ansaar naan leen bu leen gis nga bu leen financé kenn bu leen jox kenn ci li ngeen am ñoom joxeetuñu ñuy wax nit ñi bu leen joxe loolu la ñu yàlla di nettali fii la tunfiqu amwaalakum bu leen jox seen alal ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inna naxsa aleykumul faqra ñun ragal nañ yéen bu ngeen joxee da ngeen ñàkk comme moom ni mu ñàkkee dégg ngeen sax abdullah bun ubay bun salul moom moo mi tax suratul munafiquna wàcc lan la doon wax la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu bu leen jox yonente bi bu leen jox ku nekk ci wetam ba ñu déplacé wu suñu bàyyee yonente bi rek ngeen jox leen yàlla di tëj aaya ba ne leen walillahi xazainu samawati wal ard walakin al munafiqin yàlla ne leen man yàlla maa moom magasin asamaan ak suuf yi su ma neexee ma joxe waaye nag naafiq yi xamul mbokk yi nanu yëg ne yàlla subhanahu wa taala lu mu la may yàlla su la mayee dara dafa bëgg mu gis xéewal googu nga koy jëfandikoo wala yàlla mayee alal utal kër waaye bul ëppal utal waruwaay waaye bul ëppal utal ay meuble waaye bul ëppal lu nekk yemal fi nga war a yem dëkkuwaay bi na yem lépp na yem bul ëppal kulu wasrabu laa tusrifu inna allaha laa yuhibbu waaw laa tubassirha kullal bars waaye wala yàlla nee na bul tàllal loxo bi rek bépp tàllal waaye bul ko banque bépp ak banque mooy lan nekkal ci digg bi yonent bi ne xayrul umuri awsatuha gis ngeen saxaaba bi nekkoon ci sukuraat jël alalam daan ne damay joxe lépp yonent bi ne ko déedéet muy wax ak yonent bi ba ci sulus yonent bi ne ko nga bàyyi say doom ñu am lu ñu dundee ëllëg moo gën ñu nekk ay walaakaana di wéeru ci kaw nit ñi kon lislaam lépp dafa diggu dóomu nit warul ngott nit warul nay nit warul ngott ba pare nay di nëbb li yàlla li ko yàlla jox ci xéewal lu la yàlla jox xamal ne yàllaa la ko jox te yàlla du jeexal anfiq yabnu aadama anfiqu alayka joxeel ma jox la yàlla nee na boo joxee ma jox la maa naqasat sadaqatun min maal sarax du wàññi alal bal da koy setal xuz min amwalihim sadaqa tutahirum biha wa tuzakkihim seen alal jël ci lu leen di setal lu leen di laabal kon jullit yi ñun ñi nga xam ne ay jullit la nanu yëg ne danoo war a joxe sunu yàlla mayee danoo war a dépasser sunu alal ci sànce yàlla yi subhanahu wa taala tey su fekkoon ne julliti Sénégal dëgg-dëgg mel na nun war a mel kon lépp nangu nañ ko lépp moom nañ ko kon é- é- école yi nekk fii sax di grève ñoom seen yoon du ci nekk danañ tabaxal seeni doom école yi ñuy jàngee dinañ tabax dinañ tabax ay ay hôpitaux dinañ defar ay marché dinañ defar lu nekk yoo xamante ne ay jullit ñoo fay nekk waaye li garaaw mooy tey julliti Sénégal amuñ dara wala di nga gis ay jullit yoo xam ne fu ñuy jàngee ci ay école catholique man gis naa Ibadu Rahman boo xam ne ku jigéen kuy muuru day muuru de te papaam ci kilifa yi la bokk waaye papaam mu ngi ko dugal école catholique su ñëwee ba ci buntu école bi dootul muuru day def bopp neen keroog ma yégee loolu ma ne ko yow xale bi dafa toog di jooy ne ma man mënuma ci dara sam papa ma fa dugal te papam ci kilifa yi la bokk su nit bu mag la xoolal musiba boobu ndax alalu àdduna te ñun ñuy jël sunu doom yëpp di leen dugal ci école catholique yi ñuy jàngi lan la ñuy yab mbébét aljanna lañ fa bëgg aljanna lañ fa bëgg ah xam diine lañ fa bëgg lu tax ñu dugal leen fa foñetu àdduna alalu àdduna kese alalu àdduna te xamuñu ne alal ak loolu ñu naan avenir ak loolu ñu naan ëllëg wala ñu naan mustaqbal ci loxo yàlla la nekk fii gars yi dañoo jëloon école tubaab bi teg ko ci kanam du dëgg daa ne ku ko jàngul da nga al ko di nga torox tey tey gis naa ay borom licence yuy jaay café Touba ah ñii di jaay socc ñenn ñi moom sax rus nañ ko dañoo tëdd rek tëdd di nelaw di tux rek di tux rek ba yàqu te jàng nañ ba sonn kon nekkul ci mbirum njàng bu leen yaakaar ne ku topp tubaab yi wala nga dem Europe wala nga jàng tubaab rek yow sa sa sa affaire baax na ba tax ñëpp riir jël seen doom yi jox tubaab yi gis ngeen ni ñu yàq dëkk non gis ngeen ñoo xam ne jànguñu dara mënuñu sax signé benn dugg naa ci oto benn waaye maa ngi ci ginnaaw waa ji numéro portable sax mënu xamu ko su buggee woote day jox chauffeur bi de chauffeur baa ngi takk ceinture moom mu ngi ci wetu chauffeur bi chauffeur bi day dawale benn loxo di composé ba jot ki mu bëgg a woo daal di koy kii ba mu sone mun a ko am bi ma wàccee ma laajte ñu ne ma waaje numéro numéro portable sax xamu ko te pourtant am na alal kon yàlla mooy joxe yàlla mooy joxe loolu la nit ñi war a gëm ëllëg naan sama ëllëg loolu ci loxo yàlla la nekk sama ëllëgu doom yi suñ jàngulee dañuy torox yow est-ce que dugal nga yenn saa yi nga gis ne oustaz mbaa sa doom yi fexe nga ñu jàng école nga ne waaw lu mu ne non bul di bul def loolu dugal leen parce que parce que man maa ngi ni jànguma tubaab te maa ngi maa ngi dund pourquoi pas nga bëgg ma dugal sama doom loolu bu xuma tubaab baaxul nag de tekkiwul loolu de waaye bul bul bul jël mbirum avenir ci bàyyi bañ a jàngal sa doom diine di layane bu jàngul tubaab du tekki c'est parce que fii tubaab la ñuy jàng rek bu doon beneen dëkk buy jàng anglais tamit noonu laa koy waxee lu ci mun a nekk daal say na sa waa kër nañu am diine fexeel nga jàngal leen diine et puis njàngum tubaab terewul nit mu xam diine wala ok kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax waaye bu ñu am pas-pasu daw diine ngir ëllëg ngir avenir moo ko ci àdduna bu kenn ci ñun am doom gis naa tey ay xale yoo xam ne ñi ngi jàng diine di jàng français di jàng arabe di jàng anglais di jàng di gis naa xale yoo xam ne dañoo wàcc alxuraan sax ba pare dem jàngi français te bañ demee école yi ñu dugg français ñoo fa raw ñoo fa raw te terewul mokkal nañ alxuraan gis nga ñun suñu école ñoo ngi génne ay élèves yoo xamante ne ñii ñu ngi ba université ni ñu maîtriser français lañ maîtriser arabe ah te terewul xale yaa ngi jàng lépp kon nag nanu fexe ñu xam suñu diine xam suñu diine gëm suñu boroom bu fekkee mbirum alal la ak mbirum avenir ak mbirum nangam ak nangam loolu ci loxo yàlla nekk yonent yàlla Moussa bi mu suulee Haaruna bi mu génnee àdduna mu suul ko ba pare ndeysaan triste yàlla ne ko Moussa xanaa xamoo jaam ñi samay jaam lañ Moussa maay ki leen man man yàlla mi leen seetaanul bi ñuy dund nga defe ne bu ñu duggee bàmmeel dinaa leen seetaan Moussa sama jaam yi ku leen di dundal ci àdduna mu ne ko yow mu ne ko kan moo ma ci dimbali mu ne ko kenn mu ne waa ni ma leen doon toppatoo ci àdduna wallahi xam nga ne bu ñu duggee ci bàmmeel ma toppatoo leen noonu suñ borom kon bëri na yërmande kon ñun nag ñun ñoo war a ut yërmande yàlla boobu mbokk yi gaa yi waaye ak tumu nañu ngay nëbb ma ataahumullahu li leen yàlla jox min fadlihi ci xéewalam wa atadna yàlla nee na xaroo naa dencal naa préparé naa lil kaafirina ñeel ñi ma weddi yéeféer yi azaban mbugal muhiinan bu doyati gis ngeen sayid xawaa rahimahullah mu ne bu ngeen di jàng alxuraan bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee borom bi nee na képp ku ma weddi daal dencal naa la mbugal képp ku ma weddi ku mu mun doon soo ma weddee ëllëg mbug dinaa la mbugal kenn mënuñu ci dërëm mbokk yi amuñu ay baay amuñu ay maam amuñu ay kilifa amuñu ay sëriñ amuñu kenn ëllëg ku mën a dox suñu digganteeg suñu borom buñ ko jaamul amul ku fi yaakaar ne da ngay nekk sa banditisme di def lu la neex ba nga dee am na ku toog fële rek ne yàlla waaw waaw kooku waaw moom waaw waaw waaw sama taalibe la da ngay nax sa bopp wala kooku caam la sant wala saar la sant wala sow bàyyi ko mu dugg dañuy nax suñu bopp dañoo fekk zeynil abidin ali ibnul husayn ci kaaba gi moo ngi julli ba jëbi yàqu fii daa ñuul kukk mel ne nefere nag xam ngeen nefere nag xam ngeen nefere nag nag bu demee àll ba su yàggee ci àll bi nu muy def day woo koŋ ba pare jàppaloo lemu noonu la jëb yu mel ñu fekk bakkan bi mel noonu ñu fekk oom yi mel noonu ndax su jóot bu yàgg bu bu bëri ñu fekk ko muy jooy ñu ne ko waaw yow sang bi looy jooy mu ne benn aaya alxuraan laa doon jàng léegi moom laa mooma tiitloo ba ma jooy ñu ne ko ban aaya la mu ne fa iza nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin wala yatasaaluun yàlla nee na bu ñu walee buft bi ba ñëpp dekki kenn du laaj kenn koo bokkal te man mu ne maay zeynul abidin maay doomu xuseyn xuseynu mooy doomu fatima fatima muhammad a ko jur mu ne bu ñu laajtewul duñ xam may kan te yàlla nee na yow mal xiyaam kenn du laaj koo bokkal waaw kooku lañ fekk muy jooy de waxuma sax li mu jaamu yàlla xoolal ba jëb bi mel noonu óom yi mel noonu bakkan bi mel noonu ndax li muy xoosu ci ci suuf si waaye mbokk yi kan mooy pàppaam Hussein Hussein mooy kan mooy sangi ndawi aljanna kan mooy yaayam Fatima jigéen ji gën ci jigéen ñi kan mooy maamam Seydina Muhammad waa ji di jooy ndax ay bàkkaaram di jooy ndax bëgg dugg àjjana keneen nag keneen nag mbokk yi waaw nga fekk fële benn waaye boo xam ne moom du julli ji sax fajar jàkk assuré ñépp waaw te moom du julli ji fajar jàkk mu bëgg a assuré ñépp waaw ah nan yàlla musal borom bi subhanahu wa taala mu ne wallazina gaa ñi nga xam ne ñëwatina yunfiquna ñooy joxe amwaalahum seen alal aaya bi aaya bi ñu doon firi léegi léegi ñan la yàlla doon ŋàññi foofu ñi bañ a joxe ñii nag ñoom ñu ngi joxe te yàlla ŋàññi na leen allazina gaa ñi nga xam ne yunfiquna dañuy joxe amwaalahum seen alal waaye lu ko waral ria annaas dañuy ngistalu dañuy ngistalu de joxe wuñ ko ngir islaam joxe wuñ ko ngir bëgg yàlla joxe wuñ ko ngir bëgg Muhammad joxe wuñ ko ngir jullit yi déedéet lu tax ñu koy joxe ñoo waaye diw moo bëri alal xoolal gars yi ni ñuy financé waykat yi Sorano wala Grand Théâtre ah waykat bi day taxaw gars yi soral ko grand bu 10 000 benn grand bu boo xam ne dañ ko pinge ay 10 000 ba mu fees dal ñu solal ko ko wala ñu ko koy sotti dégg naa am na benn animateur bu ñu doon sotti ay 10 000 ba mu ne bu ma xamoon ma nekk waykat hmm hmm am noo la amul waaw kon kay gis ngeen ko xoolal alal ni ko yàlla tagge ak alal ni mu mën a dugal nit aljanna waaye nit am alal ba pare dem safara lu ko waral dañuy joxe seen alal riyaa annaas ndax ngistalu allahu akbar lan moo tax dañuy ngistalu yàlla moo ko wax mu ne wala yuminuuna billah gëmuñu yàlla allahu akbar wala bil yawmil axiri gëmuñu alaxira te pourtant ñi ngi joxe de kon lan moo ko lal ah ay muraa lahum dañuy ngistalu kese li yattaqu bi zalika almadamma wa yuxlisu ala almahabba dañoo bëgg ñu ne diw de am na waaye du joxe diw de dafa nay diw de dafa ŋoot bu ñu joxee ñu bëgg leen ñaar yooyu donc moo tax bañ ku leen xas ak bëgg ku leen bëgg moo tax ñuy joxe seen alal waaye joxe wuñ ko ngir yàlla subhanahu wa taala lan la leen jural mooy ëllëg yàlla bokk ci ñi mu leen ŋàññ ñi mu xas te kat xam ngeen ne alal yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na wax ne ñaari nit daal ñoo jara ñee ñee ak iñaan lan moo ko wutale ñee ak iñaan lu ko wutale ñee mooy soxare woo waaj waajaa ngi def lu baax soxarewuloo ko waaye dangaa bëgg a def mel ni moom loolu mooy ñee iñaan nag mooy waajaa ngi def nga bëgg waaj li muy def yàqu waaj yi dee perte alal ji mooy iñaan yonent bi ñaari nit rek lañu war a ñee ki joxe alalam ci yoonu yàlla ak ki joxe xam-xamam ci yoonu yàlla ñaar ñi rek lañu war a ñee amul keneen kon alal ni mel ku ko am dëgg-dëgg nga koy joxe ba pare yàlla xas la ne la alal ji bi nga koy joxe man yàlla taxuma da nga doon ngistal gis ngeen hadis Buxaari ñett ñi jiitu safara bokk na ci borom alal ki doon jàng alxuraan ak ki doon jihaad ki doon jihaad borom alal bi bi ko yàlla wooye di ko yóbbu safara dana yàlla man dama doon jox sama alal gaa yi ma koy joxe fi sabilillah yàlla mu ne ko yaa mën a fen yow nga bëggoon ñu ne dangaa baax ba mu nekkoon sa xol dangaa bëggoon ñu ne dangaa baax nit ñi wax nañ ko jeex na kon képp kuy joxe alalam joxeel ngir yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sarax bi gën ci sarax yi mooy ban sarax sarax bi loxo ndey jóor bi ngëpp càmmoñ bi yëgul waaw léegi nag da ngay gis koo xam dafa ñëw daan ne bind chèque na nañ ko wax ci rajo bi man joxe naa chèque asalaamaaleykum wa rahmatullah Moussa Thiam joxe na cent mille bu ko waxul mu ne yow eh waxoon naa nañ ko wax de waxaguñ ko de suñ ko waxul jox leen ma sama kii mas naa mas naa tukki dem benn dëkk bu tudd njongoloor balaa ngay egg Fatick dañ daan def bu ñu tëbaskee ba ci suba sa ñu dem ci dëkk boobu daawa dëkk boobu dëkku séeréer la dëkk boobu daawuñu julli juma ñun ñoo tax ñuy julli juma ñu dem ci dëkk bi guddi jot ñu bëgg a ñibbi amuñu oto xam nga bu ñu tabaskee ba ci suba sa ba ginnaaw suba bi oto day ñàkk ñu toog ci tali bi di ut oto am na benn mbokk bu ñu dendaloon mu ngi yor rajo ñu dégg am benn kilifa diine buy wax ci rajo bi ñu ñun tam ñuy déglu waaye bi mu waxee wax wax wax wax ba wax ji jeex mu ne mu woo bëkk néeg bi bëkk néeg bi ñëw mu ne ko daayira yi indi lettre yi nga ne dañoo joxe aleykum salaam dañoo joxe seen participation nañ tudd seen tur daayira yi indiwul bu kenn tudd seen tur waa ji keroog yoon bi yëpp da koo ree bi ñu amee oto waa ji yoroon oto rajo bi yoon bi yëpp da koo ree bu jege jege rek mu ne waa lii lu muy tekki maanaam daayira yi indi seen participation ci ci ci gàmm gi xaw ma ci jàng yi nañ leen tudd dañ ne daayira diw indi na daayira diw indi na mu ne daayira yi indiwul bu kenn wax seen tur kenn du ko fi waxee te kilifa gi kan moo doon wax loolu ci boppam loolu mooy lu mooy lan loolu muy tekki mooy ku am rek yow la ñu faale ku amul yàlla nga dee même ci jotaay yi sax bu ñu tegee sees yi ñi am xaalis bu ñu ñëwee ñan la ñuy wax nañ jóg ñi amul xaalis bu doon waaw képp ko amul xaalis boo ñëwee ñu ay eh eh eh jógal yow mayel kii mu toog loolu ban diine la xoolal ci islam yonent bi nee na lekk bi gën a yées ci lekk yi mooy lekk bu ñu woo patron yi bàyyi ñàkk ñu ñàkk ñi lekk boobu moo gën a bon ci lekk yi mooy lekk bu ñu woo borom alal yi ñu bàyyi ñu ñàkk ñi fële ab julit du mel noonu ab julit buy joxe alalam da koy joxe fi sabilillah comme ni Abu Bakar defoon comme ni Umar doon def comme ni Ousmane ibn Affan doon def comme ni comme ni Ali doon def comme ni da bàyyi ngeen benn borom alal de comme ni Abdurrahman ibn Awf doon def ñi dañoo jël seen alal joxe ci yoonu yàlla ba jeexal tàkk ndeysaan jeexal tàkk Aboubacar joxe na alalam ba yonent bi ne ko Aboubacar la fa bàyyi mu ne bàyyi naa fa yàlla ak yonent bi Ousmane ci atum xiif njëgg yi jógee saam ñëw commerçant yi wër njëgg yi njëgg mooy caravane caravane yi ay gëléem la ñu ngi yenu sunguf dugub meew ñu ngi yenu ba fees del del del del del ñu ne ku moom li ku moom li ñëpp ne Ousmane gars yi daw taxaw commerçant yëpp daxaw taxaw ko buntu kër Ousmane di xaar Ousmane ñëw jaay leen ko ñu ne Ousmane looy jaayee gët gëléem yi mu ne lu ngeen koy jënde gars yi ne ko booy jaay benn dinañ ko jënde ñaar mu ne am naa gis naa commerçant bu leen raw ñu ne ko booy jaay ñaar dinañ jënd ñett mu ne gis naa ñu leen ëppale yéen ah yéen amu leen dara gars yi ne ko booy jaay ñett dañ ko jënd ñeent mu ne moom gis naa ku leen ëppale ñu ne ko booy jaay ñeent dañ ko jënd juróom mu ne gis naa ku leen ëppale gars yi ne ko booy jaay juróom dañ ko jënd juróom benn mu ne gis naa ku leen ëppale ñee ne ko booy jaay juróom benn dinañ ko jënd juróom ñaar mu ne gis naa ku leen ëppale ñee ne ko booy jaay juróom ñaar dañ ko jënd juróom ñett mu ne gis naa ku leen ëppale ñee ne ko juróom-ñett dañ ko jëndee juróom-ñeent ñu ne gis naa ku leen ëppale ñooñu ne ko fii ñun rek ñoo fi nekk gisoo fi kenn mu ne ah kay ñu ne kan la mu ne man jaa bil xasanati gars yi na falawu asru am saaliha mu ne yàlla nee na bu ma joxee benn mu jox ma fukk aca kër gu nekk dugal leen fa lekk yi amul jaay jox naa ko sama borom ndax moo may fay fukk waaw jullit ba pare xam nga lu garaaw léegi xoolal Ousmane lii mu def ñun ñu bëgg ëllëg buuxanteeg Ousmane buntu aljanna fekk mu tax ñu ne Ousmane puusal ñu romb puusal ñu jàll loolu daf mun nekk mun nekk yaa axi ñee seen aljanna du question rek ay wax dañ ko jëf dañu xoolal Ousmane bokk na ci lim def ñu ñëw Madine cëpp benn yahud di leen jaay teen ñuy naan da leen di jaay ndox julli di sonn moom rek moo fa am ndox moo am fa am teen di jaay lu ko neex Ousmane jékki-jékki ñëw nag dama bëgg nga jaay ma genn wàllu teen bi nga jël genn wàll mu ne loolu nu mu nekkee ne waaw tey bu ma rootee suba nga root waaw man bu ma ayee root yow doo root waa ji ne ko bismillah ñaata waa ji xaas bu dul jeex Ousmane génn fay bi Ousmane fayee ba pare ba waa ji yóbbu xaalisam Ousmane daal di déclaré daa ne na ngeen xam ne man bis bu ma ayee root na ñëpp ñëw root ba ca suba sa nga xam ne kenn du am lu mu root ngeen ñëpp ngeen denc ndox bu Ousmane ayee gars yi ñëw root root root root bërigo yi root gutti yi root bool yi teg bu waa ji ayee du gis kenn kub jaay mu ne man de Ousmane ndeke def ma ndax Ousmane nax na ma Ousmane nax na ma ndeke bu waa ji ayee daana la daana xëy di jaay jaay nekk millionnaire alal waaye ndeysaan bi Ousmane jëndee genn wàllu teen bi waaye amatul dërëm mu mujj ne Ousmane kaa ma jaale genn wàll gi Ousmane ne ko ñaata ba passé la noonu deux cent mille bi mu ne ah Ousmane ne ko vingt cinq mille laa ci man mu ne waa indi indi bokk indi bokk ndax teen bi moom te xoolal Ousmane bi mu jëndee ne ko so yow sax ci nga bokk del naan ñëpp naan ñu daal di dindi kubéeru teen yi dindi seen yi daggate ko sànni teen bi tëjootul waaw jullit moo war a am léegi nag ku mel nii ñu bëgg ëllëg yow mal xiyaam nga langar langar yi fale waaxu ñëw pu romb ko nekk pee dëggu est-ce que xel nangu na lool wala bu fekkee ne xoolal ñi yàlla ne kaanu xalilan min al-layli ma yahjaun ñii daawuñu nelaw guddi yow bala nga yeewu ñu ne asalaatu xayru min an nga bloqué portable bi che bilal bi dafa kii dafa soof torop xam naa bilal yi moom bu leen gaa yi jàppoon dañ dóor bañ dee heureusement rek dañoo sori la ilaha illallah nga bloqué portable bi toog tuuti ci patu ba sonn wala bu dee ko ci kaw lal ba xam nañ ah jógal jógal ñu ngi waaj a kabar de jógal nga doog a jóg daw daw dem jàkka ji boo ñëwee def sa ñaar raak ñu julli suba nag nga ñëwaat nga ñëw nag dafa ne def nga dara yàlla ne ñee kaanu qalilan min al-layli allazina yabituuna li rabbihim su nee nañ nee nañ gaa yi da yaa ayyuhal muzammil qumil layla qumil layla nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alayhi ba pare ñu bëgg a xëccoog ñii mënuñu ko nag bu dee ci alal mënuñu ko bu dee même ci jaamu mënuñu ko même ci jaamu mënuñu ko ci jihaad xoolal jihaad xool Xaalid ibnul Walid nee na sama yaram bi fu ngeen xool rek dafa mel ne yére Baay Faal caw nañ ma jaasi wala jam nañ ma xeej wala dóor nañ ma fet fépp yaram bi yëpp noonu la mel ah ku mel noonu mën nga xëccoog moom ñun lan lan defagum gaa yi lan lañ defagum ñun lan lañ defagum ah ñun lan lañ defagum defaguñ dara ba pare nag ci ñun am na ñoo xam ne defaguñ dara nag mais ñoom ñu ngi àjjana ba pare ñoom dugg nañ ñëpp safara lañ jëm ñoom àjjana lañ jëm loolu du loolu du xalaat sax bu baax képp kuy jaamu yàlla ci ñun bu yeboo mu jàpp ne deful dërëm bu yeboo mu xeeb li mu def benn waaye taxaw na ëllëg ci kanamu yàlla ñu ne ko demal àjjana mu ne ah man kay xamoon naa ko mu mu xalaat ko rek rek yàlla mu ne tourné leen ko ñu tourné ko ñu ne ko yow ñu ne la demal aljanna rek nga ni xamoon naa ko loo ko xamee mu ne man def ma man lan laa def man ma doon jaamu moom ñu ne ah ah léegi nañu peese yow li nga def ak yàlla lim la defal ñu daal di jël jaamu yàlla am yëpp teg ci balance ñu jël benn bët bi rek teg ci balance bala affaire yi daal daal ñu ne ko indi indi leneen ñu teg jeexal nga de te des na yàlla dese na mu ne man kay lii laa amoon ñu ko benn bët rek lañ la tegal des na nopp beneen bët bi des na nopp yi des na tànk yi des na lépp nga jeexal mu ne yàlla ci sa yërmande boog yàlla mu ne ko acca defal gis nga kon ndekee bul yow yaakaar ne def nga dara yàlla ci yërmandeem dong dong illa an yataxammadani allahu bi rahmatihi hatta anta mu ne hatta ana yonent bi hatta ana dañ la ne nga def lu baax góorgóorlu ci bul naagu nag dafa ne ah yàlla kat comme mun na maa baal déedéet da ngay def yaakaar da ngay def yaakaar waaye defoo dara tëdd na la bëgg a yaakaar loolu munu nekk da ngay liggéey yaakaar bu weer dee nga fayee ko wala est-ce que da ngay tëdd nelaw yaakaar bu weer dee nga am salaire loolu mbokk yi xel sax nanguwu ko sunu borom nee na gaa ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal waaye riya annaas dañuy ngistalu wala yuminuuna billahi gëmunu yàlla gis ngeen wala bil yawmil axir gëmuñu àllaaxira wa man yakun sheytaanu lahu qarinan fa saa qarina képp koo xam ne seytaane mooy sa àndandoo seytaane mooy sa copain bu yow nga xam ne am nga copain bu alko fa saa ñaaw na qarinan àndandoo almulazam alladi laa yufaariqu saahibuhu képp ku seytaane nekk sa xarit alku nga ndax du la def loo fu baax du la wax loolu baax du la dox loolu baax du la jëf loolu baax te nit du deñ di ànd ak seytaane ba nekk seytaane doo deñ di xaritoog seytaane di ànd ak seytaane ba nekk seytaane ku gën a alku ci ñun mooy ku def seytaane xarit saa yoo defee seytaane xarit amatuloo xalaat bu rafet amatuloo gis-gis bu rafet amatuloo wax ju neex amatuloo lu baax looy def lu bon rek moo tax borom bi ne wa man yakuni shaytaanu lahu qarina képp ko xam ne seytaane mooy àndandoom bu yeboo mu xam ne fa saa a ñaaw na qarinan àndandoo àndandoo bu bon la am wa maza alayhim waa nit ñi moom lu leen dal law amanu billahi cey buñ gëmoon yàlla allahu akbar cey sunu gëmoon yàlla ayu shay'in yadurruhum lan moo leen di lor aw yanaalu lahum wala moo leen di dal bi makrihi bi makruhin wala loo xam ne lu lu ñu sib la ishum amanu nit ñi bu ñu gëmee yàlla lan moo leen di dal lu baax rek waaye day ah xamoon nañ ne kii day gaaw a dee kii xamoon nañ ndax moom lu baax rek lay def di julli rek foo ko gis mu ngi woor foo gis mu ngi jàng alquran ah moom moo ko def gars yi nee nañ séeréer bi dafa def màkk rek dee séeréer bi dajaloo xamoon nañ ko kii xamoon nañ ne dina dee ñu ne waaw loolu mooy loolu ñu ne moo ko def koo xam ne boo toogee sa néeg mu rey la nga dem biir néegam moo ko def nga dem këram moo ko def ñu ne ñu ne daa dem màkk dee boo toogee fii sa kër yàlla rey la ngay dem màkk moo ko def ñoom noonu lañ déggee rek ñoom ñoo déggee noonu rek waaye xam ngeen ne dee gi moom fu ne la ne léegi tamit yàlla dañuy laaj question yàlla mu ne ñu waa yéen wa maza alayhim law amanu nit ñi suñu gëmee yàlla rek lan moo leen di dal da ngay dégg fi ñu ne ku gëm yàlla doo am dara boo gëmee yàlla doo am dara fii bala ngay gëm yàlla boobaa da nga bëgg a am nga ne waa affaire yooyu gëm yooyu teg ko fee même sax da ngay dégg ko waaye waa ji day gëm-gëmlu day gëm-gëmlu moo tax du am dara inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon ku gëm yàlla moom daal du am wax nañ dëgg ndax ngëm gi moo koy tere mu def banditisme ci alal ji ba jël ko ngëm gi moo koy tere mu def saay yëfu saay-saay ngëm gi moo koy tere lu bon li mu war a def pour mu am alal am na ñu bari fii ñëpp ñu am alal bu fekkoon ne lislaam lañ topp doon am waaye comme nag gëmunu yàlla moo tax sunu am am bëri sunu am am seet dajaloo sunu kaw wa maza alayhim lan moo leen di dal law amanu billahi buñ gëmoon yàlla wal yawmil axir ñu gëm alaxira wa anfaqu ñu joxe mimma ca la nga xam ne razaqahumullahu yàlla wërsëgaleel na ko ah dara lu dul lu baax rek nit bu gëmee yàlla gëm alaxira li la yàlla jox nga ciy joxe wallahi lu baax rek nga yor du la du bon du la laal waaye nit ñi ñoom ñoo gëm ne ku gëm yàlla du am léegi naa benn waaye bu réer le 4 millions réer la ko de erreur bi gën a garaaw bi mu def mooy dafa jàpp xaritam bu mu àndaloon tudde ko sax doom dem tëj ko kasu ne kookoo sàcc xaalis bi ñu toog 4 ans xaalis bi feeñ xam nga waa ji lu mu def xaalis mu ngi ko bàyyi woon ci otom muy tukki mu yëkkati ban bi ban bi muy toog moom di dawal mu dugal foofu xaalis foofu la ko dugal mu ànd ak xarit bi ñu dem ñu ñibbi siwaat mu xool xaalis bu gis ko maanaam xamatul fu mu ko def wër na oto bi yëpp seen saag bi mu yoroon gisul fu mu ko def fàtte na ne dafa yëkkati seize bu mu toog teg ko fa mu denc oto bi garage am 4 ans tukki mu ñibbisi yóbbu oto bi garage pour dawal ko pour ñu raxas ko mécanicien bi di defar di defar affaire bi yëkkati gis xaalis bi ubbi gis muy xaalis mu denc ba waa ji ñëw mu ne ko sa oto bi de gis naa ci xaalis ñaata mu ne ah compté ko ñu compté ko muy 4 millions xelam dem ci xaalis bala la mu dindi waa ji 2000 may ko bare dem ci benn xaritam ne ko mécanicien bi day torox ba yowmal xiyaam for 4 millions sama oto di ma ko delloo gis ngeen kii day torox ba yow man xiyaam du am dara du am dara ñu ne ko la la mu ne waaye 4 millions la force moo tax dima ko delloo xaalis bi réer na ma 4 ans te xaritam bële kat mu accusé woon ba tëj ko kooku bàyyante nañ ndax waxoon na kookoo saa ci xaalis tey xaalis bi fay gis nga nit ñi li mel nii nag moo tax kenn dootul gëm yàlla ndax même léegi nii ci Sénégal boo foree xaalis sax di ko déclaré ci rajo ñu ne kii mooy taf kii kii dootul tekki kii torox na for xaalis bu toll nii di ko waaw xaalis jàmbur boo ko foree loo koy def boo ko lekkee yomal xiyam di du rees walla ngay xam ne du rees nga dugg bàmmeel ku ci dégg yi sénégalais yi di wax ba nga jël alalu jàmbur nga lekk wallahi buñ la duggee bàmmeel bàmmeel bi dina la tànc ba sa faaru ndeyjoor ñëw faaru càmmoñ li nga lekkoon yëpp di nga ko gox xam ngeen gox mooy di nga ko wàccuwaat alalu jàmbur bañ nañ ko bañ alalu alalu jàmbur ba fa moomoo moomaanam waaye tamit dëgg-dëgg xel nanguwul nit defal la taraanga ba pare xanaa boo ko deful dara sax bul ko xas bopp bul ko xas bul ko wax lu bon waaye xoolal lu toll noonu nit jox la ko ngay wër ci dëkk bi naan kii dootul tekki kii day alk kii day dee kii day torox ah la nu yàlla dimbali borom bi ne na ngeen yëg ne wa kaana allahu bihim alima wa kaana mustadañ allahu yàlla bihim ci ñoom alim di leen xam yàlla lépp la xam boo joxee sa alal ngistal yàlla xam na boo xaritoog seytaane yàlla xam na boo nayee yàlla xam na boo nëbbee xéewal yi la yàlla defal yàlla xam na bis bi nga amee nga ni awma damaa ñàkk yàlla xam na boo joxee nit ñi sarax boo xam ne da nga ciy ngistalu wala may boo xam ne da nga ciy ngistalu borom bi tabaraka wa taala xam na la waaw te nañu yëg ne yàlla subhaanahu wa taala ku ko gëm dara du wàññeeku ci yow lu dul say sa tilim tilim ak sa bàkkaar ku gëm yàlla loolu dong mooy wàññeeku ci moom mooy bàkkaar ak tilim tilim waaye amul leneen boo gëmee yàlla gëm àllaaxira li la yàlla wërsëgal nga ciy coppati di ko joxe ci yoonu yàlla borom bi ne wa kaana allahu bihim alima yàlla ñooñu di def loolu yàlla xam na leen mbokk yi li mooy darsi tey ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu